constitution la layee mhm. et je pense que il n'a pas parlé d'annulation des élections mais on sait mhm. c'est quoi s'en passer report tamit musu ko tudd baatu report ko baatu on sait son tey Macky Sall lu wax mooy naa ko ci première intervention bi def naa benn décret boo xam ne nii mooy bi nekk yoon mooy bu baax bi mooy bi convoqué le corps électoral dans son discours là lépp lu mu wax mooy annulé naa décret boobu donc bu njëkk bi def na ko war na koo def deuxième bi def na ko waru koo def moom mooy benn ñaar ñu sukkandiku ci daal ne reporté nañu élection yi décret boobu est-ce que am na effet tey est-ce que am na effet c'est un décret un premier temps le décret est émis di seet décret bi àdduna bi yëpp di ko seet gaa yi dugg moo doon dépendre sax ci la assemblée doon def nit ñu gisuñu décret bi mais assemblée liggéeyee liggéeyu caaxaanam boobu ba pare sëñu doo ko gis décret bi te décret bi war a nekk un décret co kenn ko waroon co-signé man du ko co-signé ñu daal gis une signature mu daal génne dañ koo falsifié du man. mais waxu ko publiquement de. du ko wax publiquement mais a il a il a on a ku ñu falsifié sa signature war a toog ci. Euh, ñi nga jàpp ministre. oui il était présent mais je continue. Ah. moom dafa ne foofu dafa am crise entre les institutions ban crise lañ fi dund ñu ngi nii on est libre on en paix. tribunal la ngi dox. tribunal la ngi dox. conseil constitutionnel la ngi dox assemblée jox nañ ko doxal. ñëpp ñëpp ngi doxal ban crise moom en vérité y' a une crise mais la crise elle est politique. Mm-hmm. et cette crise elle au sein de son parti elle n'était même pas nationale donc c' est des membres de son parti ngay dégg ñu wax c' est des de son gouvernement ngay dégg ñuy wax oui Amadou Ba il a été parrainé par euh, plus de cent cinquante euh, élus les quatre-vingt-dix ne sont pas avec lui fa la crise bi commencé en vérité di nga dem ba ci biir sax ñu ne la crise bi crise de Bloemfontein la et c'est vrai hmm. après ces deux femmes qui se crêpent les chignons devant les télés par des communiqués après on voit même plus loin ne la entre ces deux hommes là leurs femmes ne s'aiment comme si ñun loolu suñu yoon comme si li indi crise si la bokk c'est un des facteurs de cette crise que nous sommes en train de vivre il faut ngeen gëstu nag vous êtes des mais gëstu mais man dama jàpp ni yooyu comme ni nga ko waxee. juste pour wane ne Macky Sall dafa yëpp waa Sénégal te waa Sénégal ñoom ñooy actionnaire u Macky foofu la ñu commencé woon les actionnaires war ñoo nangu koo xam ne da ngeen ko employé mu war leen a liggéeyal ngeen jox fois day duggi daal di ñëw ne la euh, dépense yi